بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك حمدا لمن أورثنا الكتاب حتى به عنا نفر عتابا حمدا لمن أورثنا الكتاب حتى به عنا نفر عتابا مصليا على وسيلتي له خير الورى الذي أرائي قيله هذا وإني للذي يكفي ضرر عني توسلت بأسماء الصور فقلت راجيا قبول نظمي وأن أكون طاهرا من وصمي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله وبارك الحمد لله أرسل الكتاب حتى بيعنا نفعل عتابا مصلين على وصيلة خير الذي أراهي خيله وأشرح فؤادي وتعظم فتحه في الهلم بأقشره mbokk te ni setan sen television am Fall TV ngi len di nuy len ziar di lo ko den leen den di di ñaan bu son tax na ba leen jégal dem bek te lol ci delsi fasina fas yéene ànd ñu baax andi ànd yéen muy seen émission bi ñu tuddee Histoire baaxoo ci ànd ak seen mbokk Mame Balla Mbacké Mokhtar muy jotaay boo xam ne ci waxtane ni ngi koy fàttalee sa su nek rek moy njàngaleem Cheikhul Khadim te bu ñu nee Cheikhul Khadim ñi ngi jublu liman eh, l'islam eh, l'ihsan mbokk yi ko ci bi nangoon ci tom bi ñu doon durus fiq ya muy ay bind fiq yi ñuy eh, fat jàng te fiq niñ ko fàttalee saa su nekk mooy xam bi nga xam ni mooy jàngale naka la eh, doomu aadama war a eh, jëfe naka la war a jëflante ak digganteem ak boroomam naka la war a jëflante digganteem ak ay moroomam naka wala la war a jëflante digganteem ak ay moroomam ak boppam mel ni jataay bi su ngeen ko xamee xam ngeen nangoon ci julli ba tambale won nañ di waxtaan ci charti julli eh, mu mel ni jataay bi yeesu ginnaw bi ñu génnee ci eh, xibla ñu bi ñu ngi doon wax ginnaw bi ñi ngi do wax ci chartu eh, tabbi waxtu waxtu xam waxtu ak nga la ñoo ngi do waxtane chartu sutural awra sutural awra manana euh sutural awra comme defe naa leer na ni bokk na charte julli na waxtu du nga doog a julli kenn mënta anticiper julli a bokk na charte julli itam euh, nga sutural sa awra mel ni tàmbali woon nañ ko ci jaraay weesu xam naa ci loolu la ñuy dikkaat muy euh, sutural awra sutural awra euh, kan bokk na charte julli ni nga ko waxee nit ki sutural awraam comme ni ñu ko waxee keroog borom subhaanahu bi mu bindee jaam ñi ñii mu def leen ay doom bàyyi doomi aadama ñu def leen ma euh, bay may dina saxal ay karaw yoo xam ne moom mooy sutural seen awra xam ne noonu ñu euh, baax na ci ñoom ci seen biir baax na ci ñoom ci nit ñi itam waaye doomu aadama nag yàlla def mu rafleel aw yaramam waaye tàggatal ko yeneen yu muy jëfandikoo yoo xam ni moom lay defaree la muy sutural awraam euh, mu mel ni kon yaram yëpp awra la wala am na ca lenn yoo xam ne da ko considéré comme awra am na ci yoo euh, wu ko ci aw comme awra euh, mu mel ne awra boobu nag am na ñaar am na awra euh, al awratu fi salaa daaxil salaa awra xaarij salaa maanaam am na awra bu ñuy considéré ci nit ki su nekkee ci biir julli ak am na awra bu ñuy considéré Eh, bu fekkee julliwut defe naa bi ñuy yëg gën a yitteel sax mooy bi ñuy julli waaye incha allah dañu indaale eh, bi ci desam kon julli du wér li fekk eh, jullit bi julli wala aji julli ji suturalu suturalu awraam waaw makshufal awrati lay boobu sax daal santaan nañ ko suturaal ba lañ bu ñu jamono ñu julli loolu la ci wuññiku julli du wér allahumma kooku daal lot ci. def ko al ajiz moom maadhur loolu li borom daa lot nga xam ne mënu ko uh, suturaal uh, bu dee maalikee dañ ciy dolli ndax fekk nag kooka xelam ne ca maanaam ko tam su nit ki awraam dafa wuññiku xamu ci dara mu fàtte ko ba julli ba àggal ñoom dañuy xam ni julli ga wér na julli ga wér na incha su ko dee awra boobu nag day uh, wuute ci diggante góor ak jigéen. ba ci sax diggante gor ak jébéer muy jaam fekkee fa jaam di am jamono jamono yi moom kon dañ ko séddale góor am na fu awraam di commencé ak fu mu yem nga xam ne ko war sutural jigéen noonu waaye bu dee as gor noonu waaye bu dee jaam wala jébéer noonu awray góor ak jigéen ak ak ak ak ak gor ak jaam kon day wuute euh, bu dee awray góor ak jigéen ci biir julli mën naa séddalikoo ci ñaari xaaj am na awra mu xallasa ak ak ak mu xafafa am na lu ñu tuddee awra boo xam ne awra bu tal la awra bu diis la wala bu foor la ak awra boo xam awra bu woyof la euh, ci binisba li mar war rajul bu ci ne am na atte boppam nag am na atte boppam al al awratul muxallasa am naa te boppam ak al muxaffa bu dee al awratul muxallasa bi nisba li li rajul maanaam góor awraam bu bu bu dër bu dër awraam bu diis wala awraam bu foor mooy li ñu tuddee saw ataan muy euh, euh, fi muy demee aajo ak ak ci kanam ak ci ginnaaw parti yooyu nga xam day commencé ci naq bi jëm suuf euh, balaa àgg ci poo diggante boobu ñoom. la ñuy tudde euh, al awratul muxallasa al awratul muxallasa nga xam ne moom mooy awra dëgg dëgg dëgg dëgg euh, bu dee ci góor bu ci góor kon li wàcc ci ndax bi mooy jëm suuf balaa àgg ci pooj loolu ñu tuddee al awratul euh, muxallasa muy saw ataan saw ataan bu dee mu xafa nag mooy la dolli ko ca loola la dolli muy li commencé ci jumbax bi jëm kaw ak li commencé ca bëti wóom ya jëm suuf mo xam ci kanam wala ci ginnaaw la kon al awratul mughallada muy awra bu for deug deug deug ci góor moy li commencé jëm sa bopp bi jëm suuf bala ag ci bëti wóom yi bi juppo ji lol moy al awratul mughallada al muqaffa nag mooy la commencé fofu ci jumbax bi jëm kaw ak li mo commencé ci ci suufu jumbax bi ñam kaw ak li commencé ci kaw poo ji tuuti jëm suuf lol moy al muqaffafa ci karam ak ci ginnaw nak amma jigéen nag moom moom yaram wi day xawra la bu dee jigéen mboolem yaram wi xawra mu xallasa la lu jox al atraaf al atraaf ak ak ak dënn bi atraaf mooy loos weeg bopp bi ak tànk ak loxo yi yooyu bokk ci yooyu nekkul mu xallasa ak xay na dënn bi dënn bi faaw mu yéeg jumbax bi jëm kaw foofa awral ma xal la la commencé ca dënn ba jëm kaw nag ba ca jàpp ca baat ba mm, ak bopp ba ak loxo ya ak tànk ya yooya mu xafafa la loolu la kanam gi ak ci ginnaaw gi yëpp bu dee jigéen kon awra mu xalaza bu góor moo gën a limité moo gën a tuuti mu xalaza bu uh, jigéen bu mu xafafa muy te mooy mooy awra bu ci jigéen mooy li commencé ci dënn bi uh, ak la mu tollal ca ginnaaw ga jëm kaw ñaari ténq yi ak ak ak loos bi ak baat bi euh, ak ak tànk yi li ci bëtiwoo mi jëm suuf mais la commencé bëtiwoo mi jëm kaw sax moom euh, ci ci mu xal la sab la bokk kon loolu mooy awray euh, jigéen muy awra bu foor mu gën a yaatu awray góor tuuti ci nañ gisee amma bu dee xar kanam ak ñaari ténq yi nag yooyu duñ ko considéré kon awra jigéen moom ñaa xar kanamam muy lay leer ci kanam gi nga xam nopp di ci bokk euh, karaw gi du ci bokk euh, sikkim bi da ciy duggaale ak gémmiñ gi loolu du awra waaye ñaari loxom tam li ko fi muy takke jara ba cete baram yi loolu biir ba ak biti ba lenn ci euh, du du duñ ko considéré comme awra moom mën na koy wuññi saa su nekk xëy na ay wute mën na ndax gis ngeen fii comme ñenn ñi lay lay ñi sol burka yi jàpp ci awra la ay wute bi bu ci bi ñu xam Euh, loolu la ñuy considéré comme euh, tënk yi muy loxo yi li commencé fi muy takkee jara wala fi ñuy takk montre ba ci cati baaraam yi biir bi ak biti bi loolu duñ ko considéré comme awra waaye euh, xar kanam duñ ko considéré comme awra ah. bu dee awra mu xafafa nag ci ab jëbeerte mooy jaam ba jaam dem wala fam am moo góor ñooy yem Euh, bu dee jàmbu jigéen awra yi góor lay yor lu dul euh, jekkikaay yi ak li nekk ci li li li to li maaseeg moom ca kanam loolu moom awra lay euh, lañ koy lañ koy considéré ñoom ci mu xallasa la bi nisba lil am day mel ni kon ci ni ñuy jàngalee xëy na féministes yeeg xeet yooyu ñoom duñ comprendre loolu waaye booba ca jamono ba jooju loola yam ndax xëy na ñooña maanaam nit ñi atte yi mën nay ak ñoom par rapport ak seeni situation seeni tolluwaay seen seen seen seen seeni tolluwaay seen ndax ñooñu xëy na dañ doon liggéey lu baree bari daanaka dawuñ sol comme boo demee ci léegi rek ci kër yi boo demee ci kër yi fi ne xeeti mbindaan ne ci àll bi liggéey euh, xëy na col gu mat dëgg dëgg gu doy gu ñuy suturaale seen awra nañ ko bëgg dëgg dëgg mën naa dana jafe xëy na mën naa nekk loolu mën nekk xëy na liggéey bi ñu doon liggéey lu bari tax duñ sol col gu jot mën naa nekk mën naa nekk itam rafle wañ daa dund nga xam ne xëy na du ñu am col gu jot moo tax ñu woowee falal ne leen ko noonu mën naa am itam xëy na xemem teef bañ leen war a xemem dëgg duñ leen ko woon xemem xëy na li li li li jigéen si doon jur ci fitna mën a andi ci fitna su fekkee ni dafa wuñu awraam xëy na bu dee jaam bu jigéen bi jamono ñooju bu wuñu awraam xëy na awra bi du intéressant loolu ci ci ba jur fitna xëy na yëpp mën naa mën naa nekk wuute am waaye alaa kulli haal xukm euh, fiqhi la ci euh, fañ ko mën a attee Ah, kon moom moo góor ñooyam yeex saw ataan euh, daanaka mooy mooy mooy mooy awra moom jàmb jigéen waaw ah. su ko dee képp koo xam ne nag julli na te fekk loolu ñu tuddee al awratul mughallada lenn ca ma ngay feeñ wala lenn ca doonte lu néew la te fekk ni mu man koo euh, mënoon koo sutural euh, te day jën lam ko suturaale wala da koy àbb wala lu able woon di ko jëli la du caage nag luñ koy may nag boobaa ah, bu fekkee suturaale ko te amoon moyen yu mu ko defee julli ga la yàqu kon góor buy julli li commencé li commencé ci ron naq bi tuuti euh, jëm suuf ba ci ron pooj ba ci kaw pooj yi tiim pooj tuuti euh, mu ñu as saw ataan wala mooy mu loolu noonu bu fekkee ne day julli si suturaale ko moom julli ga day yàq su fekkee man na ko suturaal jigéen la commencé ci ay bëti moom jëm kaw ak la commencé ca dënn ba jëm suuf loolu da ko war a suturaal buy julli lu ci wuññiku te mu mënoon ko uh, suturaal uh, bu jullee julli ga uh, du baax ak nu mu ko mënee nag donte da koy jëndi wala mu di ko bi wala mu àble woon ko sax di ko jëli Euh, na fekk daal euh, su ko mënee daal saa yu mënee ni euh, saa yu mënee suturaal awraam jooju muy awratul muxallada te xelam ne ca mu fàttali ko fàttewu ko boo julleem da yàqu da war a baamu ba faw moo xam waxtu wa des na wala waxtu wa jeex na kon képp ku julli awraam di wuññu ko te mooy awra bu tal boobu ñuy wax muy awra bu for boobu ñuy wax su booba dafa war a baamu julli ga obligatoirement su fekkee ni mënaan na ko uh, suturaal te defu ko hmm. bu de awra bu woyof bi nag al muxaffafa moom moo xam lépp moo wuññiku wala na moo ci wuññiku moom mën naa ba njàq julli mën naa ba njàq julli doonte wuññi ko dafay xaraam dafay xaraam wala mu nekk luñ sib ci julli léeg am ci parti yoo xam ne xëy na wuññi nga mën a nekk xaraam léeg xëy mu nekk naa euh, luñ sib ci biir julli euh, waaye du yàq julli ga moom mu xafafa boobu te waxoon na mu xafa fa ci góor mooy li commencé ci jumbax bi jëm kaw euh, ak ci ron ji tuuti kaw ji tuuti jëm jëm jëm suuf bu dee jigéen nga commencé bëtu bëtu mi jëm kaw ak ci dënn bi jëm suuf la ca topp nag mooy al al maxafa Euh, awra booyeef boobu nag day xalaat xool ko dafay xaraam xool ko dafay xaram dafay xaraam euh, bu ñu nee naa dafay xaraam mag mooy day jur bàkkaar du yàq julli gi waaye day jur bàkkaar te kuy wut bàkkaar ku kuy kuy wut tuyaaba ba àgg ca di jaamu yàlla nag moom waroo mën def ci biir li ngay euh, jaamu yàlla di ci defaat bàkkaar même en même waaye nag sopp nañ. koo xam ni day julli fekk awraam bu woyof boobu wuññiku mu baamu julli ga bu fekkee ne am na lu ko suturaale te waxtu wa jeexul te waxtu wa jeexul loolu am na euh, euh, ak leeral tuuti gu ca mooy bu dee as gor euh, na baamu ca waxtu su fekkee julli na boppam wuññiku wala aw loosam wala ay waggam wala ay ténqam wala Ah, ay weenam wala dënnam wala boog la tolloog moom wala tolloog moom ci ci ci gannaaw ga wala ca bëtiwam ya wala ca ah, tànk ya ba ca ndëggu ya moo xam kanam ga wala biir wala biti ba la ah, kon gor jigéen maanaam jullit bu jigéen buy julli su fekkee ni awraam boobu euh, wuññiku na dañuy bëgg mu mu mu mu jaam mu mu baamu jox dañuy mu baamu ci waxtu wa te loola mooy parti yooyu ñu wax ni ko lu mel ni mu julli def bopp neen maanaam bopp bi muuruut wala mu julli laxasu dara ca loosoo def yoonam wala mu julli tegu dara ca kaw mbagg ya muy feeñ wala muy julli zira mën a xasab bi feeñ mooy li commencé conco yi ba ci euh, cati baaraam yi te loolu suñu mbokk yu jigéen yi moom lañ koy sàggane bari na lool moom moom bari na ñoo xam ne mm, yooyu dañ koy sàggane maanaam li commencé conco yi jëm suuf wala li commencé maanaam xasab bi foofu dañ ko sàggane walla dënn bi euh, walla ween lu ci leen feeñ ak la tolloog moom ca ginnaaw bu dee suuf gi bëtiwam mi walla yeel bi ba ca mujjug ndëggu ya ci biir ak biti loola bu fekkee jigéen day julli lenn ci wuññiku ci yooyu sopp nañ mu baamu euh, julli ga su fekkee waxtu wa euh, des na su fekkee waxtu wa des na donte ci Eh, mu xafax bi lañ ko lay dugg ci awra boyef la dugg nga xamni xeyna ñak na ñàkk gasutaal du eh, julli du wàññi du yaq julli du yaq julli ay sop nañ dal fekke jigen di doon julli def bop neen wala tank yi eh, wuñu ko suturaal ko bu waxtu wa desee mu mu mu mu baamu amma gor dana baamu nak ci waxtu baamu waxtu su fekke ni li ne ci ron jumbax bi dafa wuññi ko mel naq bi jummi wala jekkikaay yi euh, wala euh, la jekkikaay ya wuññi loola rek lay baamoo waaye moom fekkoon ni pooj yi li commencé ci wóom bi xaw jëm kaw tuuti moo wuññi ko bu dee ko góor ci biir julli loola du du du tax mu baamu naka noonu euh, li ne ci kaw naq bi ba ci jumbax bi su wuññi du du ko tax a baamu ak la tolloog loola nag ci ginnaaw ca jekkikaayu kon euh, góor daanaka li li li li méng euh, mu xallasa bi nga lu ko gën a jige tuuti lañ bu fekkoon ni ci mu xafa bi loolu julli na mu ñiku euh, dañuy sopp ci moom baa mu julli ga su fekkee ni waxtu wa des na kon awra ci julli mooy loolu amna na mu muy awra bo xam dafa dis dafa dij wala dafa tal te moy parti yu ñu doon wax legi koku mom bu fekke dafa wuññi ko ci biir julli te boroom xelam demoon ca fàttiwu ko te man ko sutural te sutural ko bu wa bu julle bu nopp julle gëna yaqku da koy baamu obligatoirement su fekke ni nak ci mu xafafa bi la te moy yoy ñu doon leral legi tam ci ci awr nga xamni moy mooy dañ ko sutural su fekkee dafa wuññi ko te borom maan ko sutura suturaal ko dañuy sopp rek mu baamu ci waxtu baamu waxtu nag mooy waxtu jeexagul waaye su waxtu ba jeexee mm, incha allahu ko jaar su ko defee suturaal awra dafa war nekk lu sax charte la ci e, wérug julli gi nit ki suturaal awraam fi commencé julli gi ba fa mu e, noppee fa muy noppee e, bu dee mazhab Maalik dañuy wax ni. Euh, wuññi ko awra bu foor ba bu ñuy wax ci julli day yàq julli ga euh, ci anam yépp euh, bu doon daa tàbbi ci julli gi lamu suturloo woon deñ wuññi ci biir julli gi day yàqu day baamu julli ga ba faw wala wax ci la gën siiw kon suturaal awra dafa war a sax dafa war a sax fi nga commencé julli ba fi ngay euh, jeexale da nga ko war a euh, saxal même fekkoon daal suturaal awraam kàbbar di julli euh, bu doon jigéen tey muy commencé di julli ngelaw ñëw sër ba mu war naaw wala muy góor mu mel maanaam ma takkan tubay ci tubay ba mu sumi ko naaw nga ñu noonu bu awraam bu bu foor bi wuññi ko ci biir julli gi te fekk commencé woon na mu ngi ci biir julli gi daa war a baamu julli ga man maanaam julli gëna yaq day ko seen nu mu koy sërmal nu mu koy jeexale mu koy dagge ndax euh, dootuma wér wër muy julli euh, dañu sart nak ci suturaal wala euh, ci mo xam yéré la wala lu mu koy suturalé mu nekk lu fat na nekk yéré bu fat comme niñ bëggé jigéen ñi di sol fat nga xam ni du du du du du am du du du du di du kon du doy nit ki suturaal yéeram ci yéere bu bu bu yaraax boo xam ne day wane melu melokaanu derom yaramam nga xam ne su doon ko xees la tey su muuroo gisoolul parti boobu rek danga ma ne ko ku xees la wala ku ñuul la kon yéere bu ñuy suturaal awra di julli dafa war a nekk yéere boo xam ni yéere bu bu bu bu bu tal la tal la bu am épaisseur la bu fat la bu lëndëm maanaam mën naa bañ a tal ci dijj nii am épaisseur waaye na nekk bu mu nekk lu lu lu lu perforé bu mu lu lu leer daal lu leer bu nekk bu leer boo xam ni euh, bu ko nit ki solee nga mën a xam moom dafa xees wala dafa ñuul kon surtout suñ mbokk jigéen yi euh, xëy na am na ci yére yi ñuy sol léeg-léeg nañuy bàyyi xel loolu nañuy bàyyi xel loolu bépp yére boo xam ni mën naa doon nag ci ci ci yaraaxaay bi dafay teref dafay teref nga xam ne dafa woyof woyof maanaam euh, dafay fiin épaisseur bi mooy mooy feebal feebal ba nga xam ne am na waxoon transparence bi loolu moo koy indi mën na nekk transparence bi itam indi ni dañ koo bënn nga xam ne jëmm yére bi fatt na waaye dafa am perforé comme borode yi comme borode comme borode boo xam ni euh, kenn dubluuru ko mënul julli do borode buñ ju dubluuru mënul julli naka noonu ci yenn xeet seen xeetu yére yi am na xeetu yére nelon yu ñu yor yoo xam ni soo xoolee bu fekkee dubluuruñ ko mënta julli su fekkee danay euh, ndax eh, dafa dafa yaakaar moom ah, na fekk nag eh, moom mu mu doon loo xam nag woowee faay bi dafa ëpp maanaam yaraaxaay bi dafa ëpp eh, ba nga xam ni ko xoole xam ni kii yaram mi ngi ci biti am nañu sax même bu fekkoon sax du du ko xool gis ko waaye ku seetlu ku xool lu yàgg gis ni kii. Euh, couleur yaramam couleur peau yaramam nangam la mel saa transparence boobu amee rek moo xam ku ko gis xam ko la wala ku ko seetloo koy xam bu ci ne day wax ni euh, yéere duñ ko suturaale euh, awra diis ko jullee kon duñ ko suturaale ca ca kër ga mais buñ dee julli itam rawatina kon kuy julli dafa war a suturaal awraam awra mu xàllata boobu mooy parti yooyu ñu doon wax léegi. Euh, ci góor ak ku jigéen wuute nañ ci gën a yaatoon te ku jigéen moo gën a yaatu moo gën a bëri awra suturaal gi daa war a nekk ci commencement julli ba ca fin ba euh, bu suuf wuññikoon ci biir julli gi da dakay da baam day day dog julli gi naka noonu li mu koy suturaal itam euh, na nekk lu lu lu lu bu mu nekk lu yaraax wala lu waaw bu mu nekk lu yaraax loo xam ni wala lu am bën bën loo xam ni dafay am transparence ba ñuy gis yaram ba bu maliki Malik yi nag euh, daañu sart sax ni dañ sart mu nekk yaraaxaay boo xam ne nag boo xoolee rek nga koy gis waaye bu dee nag faaw nga seetlu lool doog ko gis nga xam ne yaraaxaay ba mu solo lool maanaam fóor ñoom dañuy boobu du ci bokk du ci bokk xëy na dañuy sib ku ko jullee rek waaye boo ko jullee itam te julli gën a baax bu ñuy sib nañ ko nag mooy dañuy baaw dañuy sopp nga baamu euh, ci waxtu nga sopp ba ba wax luñ la boo ko bàyyi itam du euh, su ko defee euh, bu fekkee ni nag euh, yéere ba dafay tafu ci yaram wi tax mu am maanaam di di di di di di muule yaram wi lool du lor du lor nga xam ni yéere ba bu bàyyee ko noonu mu sëmbar noonu wër noonu def dara waaye bu fekkee day tafu ci yaram yi nag bay muulee yaram moom loolu loolu loolu loolu ay moom maanaam yére bu na nu muy yére bi tafu gi muy tafu ci yaram wi maanaam moom mooy tax muy muy mel noonu bu tafu ci yaram ba muulee ko léeg mu am euh, xaatu transparence bi ci nekk euh, kon yére bu dang xëy na am na dangaay bu muy dang boo xam ni du du ay donte léeg nag mu xaraam léeg ñu sib ko itam waaw bi ñuy suturloo bu fekkee dafay délimité awra ji di ko di di di di di di di ko muule ba nga xam ni fii la cër bi commencé ak fii la yem man daf ciy tafu bu mu dëgg dafay dang loola léeg-léeg mu nekk loo xam ni euh, dafa dafa dafay xaram léeg-léeg dañ koy sib ci loolu nag muy lu tooy ne bu dee lu tooy moom naturellement euh, yére bu tooy wala boo xam ne ngelaw da ko mu tafu ci waaw tafu ci wax euh, yére bu xaram boobu sax nag dana waral baamu julli ci waxtu day wax baamu baamu julli ci waxtu waaw ki bu solee yére bu dang boo xam ni dafa natt aw yaramam dafa natt aw yaramam ba délimité cër yi ba tafu ci kooku des fois am na parti yoo ne bi parti yooyu dafay xaram comme ni nga xam am na parti yoo xam yooyu dafa dañ koy sib euh, su boobaa nag euh, dees na ca baamu julli loolu dees na ca baamu julli dana waral baamu julli ci waxtu julli ci waxtu te fekk nag yére bi muule yaram wi duul ni dafa tooy bu dee yére baax ni ki doon julli di taw te yéreem tooy wala moom sax euh, dafa tooy tooy ñëw yére tafu ci yaram wi ba ba ba ba natt ko su boobaa du wàññi dara su fekkee ngelaw tam mu ñëw nom yére ba mu natt yaram bi ba netaal ko du wàññi dara lañ jul mooy ne yére bi xat moom ci boppam bay muulee yaram bi ba di ko natt su boobaa yére boobu waxoon nañ la léegi am na parti yoo xam bu dee moom léeg-léeg dem ba xaraam euh, mën naa dem ba mu nekk luñ sib waaye lu ci mën dem daañ sopp tam ku ko jullee mu baamu ci waxtu baamu waxtu ak ni ñu ko waxee woon léegi mm, su waxtoo jeexee rek day day day day dis ko baam dis ah kon bu dee yére boo xam nag moom dafa tooy moo tax muy natt yaram wala ngelaw li mu naaw mu tafu ci borom ba natt yaram kooku moom euh, du yàq dara julli borom mën naa ko ni julli euh, duñ ko sipp daal du ko fekk mm. kon loolu maa ci euh, yére bi mu ni képp koo xam nag amul lu muy suturaale awraam nan lay def kuy julli te amul lu muy suturaale awraam aslan nga xane amul dara dara dara dara na na na julli yaram mo neenam nak na julli ci yaramu neenam te te julli ga inshallah allah dana wer waaw julli da for da for lol lol lol mom da nak duñ ko bayilo ken duñ ko bayilo ken xana ko tagok sa gom rek waaye dafa yaa ngi ànd sa xel mom du wacc wàcc yéen ñi nañ koy def yeb lu ca manu rek waye lu ca manu tam du tax euh, ñu ñu bayiko ko kon ku amul lu mu suturaale awram amul lu mu sol julli na na na na na julli ca raf rafleem woowee su fekkee daa am mbalaan dafa am yéere bu mu sol nag lu dul ni yéere ba daa fekk sobe nekk ca ma wala wala jëmmi yéere ba da yéere bu sobewu nga xam ne mënta ju lu mel ni de de deru mbaam xuux nga xam ne loolu mooy sobe wala sax mu yéere boo xam ni dafa taq sobe dafa taq sobe lu mel ni yéere boo xam ne sobe da caa taq saw wax ne bokk saw yu jéggalé yu yu xam saw bu mënta ànd yeewu la euh, na ca julli na ca julli na julli ci yéré bu sabew bobé wala bobé nga xamni euh, euh, dafa dafa dafa xobé dafa taq xobé kon bu fekkee dafa am yéré bo xamni jëm yéré mo sabé lu melni ni deru mbaam xux do nga fam da ca da ko wara sol da ko wara do julli su fekkee daa fokk yére boo xam tam sobe da caa taq ay dem àll wala leneen taq ca wala ah, tuur ndox saw taq ci ba mu ba mu tooy ba mu xam ne sobe la te du sobe bu ñu jégg la nga xam ne kii du ko julliwaale te moom dong nga fa sës tam wala mën nañu moom dong fa sës te amu ci benn pexe na ko na ko su waa sax du du baa mu julli ga ah, du war mu baa mu julli ga ah ak cofeel baa mu cofeel lal ci waxtu wa su fekkee am na mbubb mu laab waaw kon. mana ku julli ci sobe ngir xam nga ku julli sobe ngir ngir ngir ngir ngir ñak man la doon ñom dañu pour pour sobe mom euh, xabas pour mu yaq julli day fekk borom fatali ko nopi te te te te mu man ko dindi ma am ci pexé mu am ci pexé kenn da ca amut julli ci nopi kon du war mu baamu julli ga lu dul lañ koy sop rek dañ koy sop bu fekke waxtu wa des na sop nañ mu baamu ko so amé mbum mu lap te waxtu wa ah, des Euh, naka noonu ku julli woon ci mbubbum soie lu ñuy wax sooy alxariir euh, nga xam ni dañuy tere ko jullee maalikee nañ ko ci julli woon ba noppi nga xam ne moom rek moo fa sës ndax bu fekkee moo fa nag da nga ko war a suturloo te julli moo gën nga jullee yaramu neen jullee yére bu baaxut bi moo gën nga jullee yaramu neen kon da ko war jullee mu hmm. su fekkee nag daa am yére boo xam ni dafa xaraama euh, jëfandikoo lu mel ni mu am yére soie euh, comme ni ñu waxee léegi da ciy julli ngir euh, daroora day da julli ngir daroora su boobaa du baamu du baamu julli ga du baamu julli ga kon yére boo nga xam dafa xaraama jëfandikoo bu dee moom doo nga fa sëstam te julli jot moo ngi yére bu sobewu ba wala maa xam ne jëmm jaa sobe ñooyam daroora la ñu jëfandikoo ko julli incha allah amma su fekkee am na lu muy suturaale eh, lenn ci xawraam kese kese kese nag day war mu jëfandikoo ko ca la muy suturaale xawaraam ah, bu fekkee yére bi mu am mënta suturaal awra bi yëpp yëpp yëpp na seet lam ca mën a suturaal mu suturaal ko la ca des mu ko noonu te julli su boobaa nag eh, kanam nga lay jiital ak ginnaaw ga ah, eh, Malick sa dañu wax ni day war mu sutural mu suturalu mu suturalu ci lëndam mu suturalu ci lëndam ah ko amul eh, ben yéere budul bobu mu suturalu ci lëndam ñom dañu japp ni lëndam gi mi ngi melni ni manam maanaam saateer la bu manam euh dañu amul luñu ñu luñu lu ah bu fekkee amul yéere ko amul yéere bu mu jullee dañ na seet fu lëndam mu fa na dem seet fu lëndam. mu jullee fa ndax dañuy considérer lëndëm gi comme comme comme sutura dañu sax mënul ko sutura fekkee nit ki amul lu mu lu lu mu ba ba julli ñoom dañuy wax ne loola sax su ko bàyyee julli ci ak leer te fekk mu amoon lëndëm gu mën a jullee def na bàkkaar waaye euh, julli gi na kon ki amul yéere bu mu suturloo bu fekkee daa bëgg a julli day seet fu lëndëm mu jullee fa seet fu lëndëm mu jullee fa su fekkee na fu lëndëm fu ma di jullee xam mën naa tëj ñi mën na mu julli te defu ko dem jullee fu leer ak yaramu neenam su booba julli na eh, waaye eh, def na bàkkaar su ko dañuy sopp nag mu baam baamu waxtu xam nañ baamu waxtu moom tuuti la dañuy sopp mu baamu baamu waxtu ma soxtu wa eh, desee rek ah su fekkee nag daa ñàkk mbalaan daa ñàkk lu mu suturloo ba julli waaye yaakaar na ne balaa waxtu wee jeex dana ko am euh, daañu ko may mu yéexe julli ba ca mujjug waxtu wa daañu sopp mu yéexe julli ba ca mujj war a julli amul yére bu mu sol amul lu ba julli waaye yaakaar na ne balaa waxtu wee jeex dana ko am kooka dañuy sopp mu yéexe waxtu wi ba ba ba ba ca heure boobee nga xam ni ca la yaakaar ne dana ko am bu ko dee bu ko amee mu doog a euh, julli ca mujjug waxtu wa mhm. su ko defee sutura Benci nag buñ ciy considéré ci kaw gi la ñuy wax ci kaw gi ak ci wa ak ci wet yi du ci suuf gi du ci gi moo xam ci boppam wala keneen ku dul moom bu nga ci sawet di gis sa bu la kenn di gis wala yow ci sa bul khol ci sawet man a gis sawra bul xool ci sa kaw mën a gis sawra ah. doonte yére bi daa doon yére boo xam ni daa xotti ko ca ca ca ca baat ba wala ca wet ga nga xam ni moom ci boppam mën naa gis awraam uh, wala wala wala keneen gis ko uh, boo julli ga da yàqu lu mel ni am na jàllaabi yoo xam ni maanaam day am lu mel ni poos ci wet gi te doon poos day xar day xar ko ken munu ko julli ci solotu bay wala nga wodd dara pour suta lol ndax man na wuñu ko ci bir julli euh, naka non bre dee mbu ma xam baat bi dafa ubbi ko tam baat bi baat bi dafa ubbi ko yep moy tam nga xam yow bo segge ni da ngay gis sawra sa bop wala bu la ya timon di gis sawra ko ken du ko euh, julle donte ken xoolu ko itam nak donte ken yow yaay yaay xam ni fi bu ni taxawon sa ah boo wéetoon yow doo nga di julli sol yére boo xam daa xotti ko xotti ko ba nga xam ne moom bu nit nekkoon ci sa wet ne dana gis sawra wala yow boo xoolee côté boobu gis sawra yi bopp soo yére boobu du mën a julli euh, dañ ko war a changé dañ ko war a changé donte kenn niwu fa koy gis tam nag donte yow xooloo ko itam amma bu fekkee nag pour ñu gis sawra ci ron gi lay doon loolu du aay maanaam nit mën naa sol ab jàlla wala sabadoor wala dara euh, jullee ko yére boo xam maanaam bañ a maanaam bañ a sol tubay daal nit mën naa naaru bañ a sol tubay jullite incha allah fekkee dana baax waaye kaw ga moom daa war a fermé ak ci côté yi yëpp moo xam ci euh, suuf ba ca kaw fi awra bi toll yëpp amaa bu dee ci suuf gi nag moom ron gi yére mën naa sëmbatal du forcément yére bi day euh, day fas wala mu euh, laal suuf yu mel noonu bu dee Maalik sax dañu xam ne ñoom duñ duñ duñ sut duñ sart nag ñu ko mu ci sural boppam moom waaw ah, moom bu fekkoon ne daa gis awray boppam ci kaw baatu mbubbam ñoom dañuy wax du yàq julli gi doon loolu dañ ko sib nag doon lañ loolu dañ ko sib ñoom dañu kon keneen xanaa waaye bu dee moom ci boppam mën naa jullee yére boo xam ni grand mbubb boo xam ne baat bi daa ubbiku mën naa am bu sëggee moom buy sëgg dana gis awray boppam soo ñoom dañ ni loolu nañ ko rek waaye euh, du yàq julli incha allah kon loolu mooy suturaal awra ci biir julli mënta ñàkk bu fekkee nit ki fàttaliku na te mën ko suturaal bu dee awra bu foor bu tal boobu su ko julliwaalee euh, julli gi da yàqu da ko baam obligatoire da ko baam obligatoire bu dee awra booyeef boobu la nag euh, dañuy sopp ma baam rek bu fekkee waxtu des na waxtu des mën na ko euh, bàyyi moo xam ci góor la walla ci jigéen bu ñëwee nag ci sutura awra ci lu dul julli day war ci mukallaf mu suturaal awraam même donte nekku ci julli itam mo xam ci bopam la mom da sutural awram du ko xool moom ci bopam ak keneen ku dul mom tam ca nya nga xane da dagan ñu xol jëm ci awram ludul dul euh, lor nga xane ne mënta ñàkk nga xam dañoo dañoo loru ci euh, xol ko lu melni koy faju kay faj bopam man na wuñu awram faj ko waaye keneen ku dul moom mën naa wu awram faj ko mom moom mi feebar waaw waaye lañ cay dagal na mooy kem kem kem kem kem lor ja kem lor ja rek kem lor kem lor ja su dee mën nañoo wisit nit ki te du dañ koy futti ba mu set du ko jar du ko jar du ko jar bu dee ci suñ mbokki docteur yi maanaam am na ñoo xam ne rek comme ñi nga xam ne da ci am ci jafe-jafe ci soxna yi ñi nga xam ne dañuy wisitu ci ci tey góor ñu leen di wisit lu melni ni eh, nga xam dañuy dañuy faral di wisit jigen ñi la jigen ñi am ci ay jafé waye lepp lo loo xam ni doon sharia sax moom d'accord ci lolu xëy na ñu war di faj góor yi jigéen ñi faj jigen ñi waye bu démé ba nek daror na nga xam mën na ñàkk ndax ku goor do mok fi man té té lu mën na ñàkk la ci wër gëram su baba xëy na lislaam mën na permettre may na permettre eh, xëy ci ay charte waye nañuy limiter Ah, fa nga xamni fa la mu ñu bari mu ñu loolu kon ki faju muy ku goor la muy ku jigen ku góor wala moo ko faj wala ku jigen wala mom moy faj boppam buy wuñaaw raw na ko limité ci la nga xamni moy mooy la mën na ñak pour mu faju mën na ñàkk nga qadru darura lañ soxla kaw ni mu dagaa ne nag nit wuñu aw raaw bu fekkee day dafay dem aajo dafa ne ci wonak wala fay sang kuy sang tam da nga war a suñu ko wuñ sawra ak kuy faj aajo hmm. ak yi demé non nga xamni euh, nekkoon su nekkee ci wéet goo xam ne kenn gisu ko itam bu nekkee ci wéet goo xam ne kenn gisu ko euh, foofu nag xaw naa am tuuti wuute ah, ndax am nañu ni maanaam nit ki ba bu wéetee sax sa nit wu ñu awra am su ko euh, euh, awray jigéen nag soo xam ne as gor la ci lu dul julli mu ngi commencé ci diggante jumbax bi ba ci bëti wóom yi su fekkee dafa wéet moom kese Jigen bu wéetee moom kese nekkut ak kenn li commencé ci xam ba ci bëtiwoom loolu awra la amut su droit def yaram neen amut droit summi ko wala boog mu nekk ci ñoo xam ni ay góor lañ ñu ko ñu ko xaram lañ ñu ko xaram ñoo xam ne ko denc ah, wala mu nekk ci ay jigéen ñoo xam ne ay jullit lañ bu suturaalee li commencé ci xam ba ci bëtiwoom moom soxna soosu ah, la des ci yaramam mën na koo bañ a suturaal mën naa sol yére bu gàtt noonu te fekk ni moom daa wéet moom kese ci néegam walla mu wéet ak ay góor yoo xam ne dañ ko war ay magam ak rakam ak waajuram mu wéet ak ay jigéen yoo xam ne ay jullit lañ su boobaa sañ naa wuññi aw yaramam lu dul li commencé ci jumbax ba ci bëtoo mi loola day wuuteeg comme. maanaam ni tubaab yi def nga xam ne tam tam xew léegi ci ci ci ba ñëw ci suñ te euh, fii te suñu saara maanaam di sol may demee may demee may demee même sa biir néeg sax suñu suñu ko fa sol yow donc maanaam même boo nekkee sa néeg donc jigéen amul droit sol may demee amul droit sol ko moom kese ci biir néegam maal asaf yi dañuy dem di ko sol ci plage yi euh, ñoo jigéen ñam di ko sol parce que ma far ñoo góor ñi sax ñu nekk ndoo fa ñu nekk ndoo fa ñu nekk ndoo fa euh, maanaam loolu lislaam mayewu ko jigéen daal. bi mu xam bëti bitum awra la boo xam da ko war di suturaal même doon moom doonte moom kenn moo nekk nekkut ak kenn moo nekk chambre moom kenn wala mu nekkal dañ koo xaraam muy ay ay ay frère am wala ay ay euh, mu nekk ay jigéen yoo xam ni hmm, ay ay jullit lañ ñooñu euh, bu ko def mën naa sol yére bu gàtt boobu amma bu fekkee daa nekk góor goo xam ne ab jàmbur la nga xam ne araamu ko te denc ko wala ay jigéen yoo xam ne du ñuy jullit Euh, yaramam yëpp awraay doon lu dul euh, tinq ya ak xar kanam ba waaw tinq ya xar kanam rek moo dut euh, awra moom dagan na ku nekk ak ñoom nga di ko xool moo xam ngay góor wala ngay jigéen nga aram nga ñàkk aram bu fekkee ragaloo ca fitna bu fekkee ragaloo fitna bu fekkee ragaloo fitna kon jigéen du sol kiloot jigéen du sol maillot de bain di génn ak moom ci ci ci mbedd li commencé ci jumbaxam ba ci bëti woomam même bu nekkee ca biir këram sax da ko war a suturaal da ko war a suturaal euh, ak bu nekkee ñu ko xaraam ak lu mën doon moom yooyu da ko war a suturaal moom bu wéetee moom kese nekkut ak kenn euh, maal azaf léegi nag dañuy gis ne euh, dañuy sol lu gën a gàtt lool sax di def di di génn ak moom ci mbedd yi moo tax ñuy gis yi ñuy gis. Hmm. mu kàllaf mu nekk nag bu wéetee sib nañ muy wuññi awraam te mu ci aajo ah, surtout li ñu jublu mooy awra ju ne ci ak wéet mu ci wéet waaw ah, maanaam mu kàllaf su wéetee moom kese nekkut ak kenn du tax ñu may ko muy wuññi awraam sib nañ muy wuññi awraam surtout bu dee eh, li ñuy saw atay ni ñu ko nu ñu wala aliyatay mu Euh, kanam gi ak ginnaaw gi ak fi muy jekkee ak naq bi yooyu bu dee góor wala jigéen ku mën na nag sib nañ mu di ko doon doonte moom kese moo nekk euh, bu dee ci pooj yi nag jëm ci suuf jëm ci wóom yi bu dee góor la wala jigéen euh, man man man man maanaam duñ duñ sib man na koy wuñ bu wéetee moom nekkut ak kenn bu dee biir ci jigéen dañuy aay muy wuññi biiram def yar mu neen bu fekkee daa wéet moom dong dañuy simb ko muñ Maalika sax nañ moom awray jigéen bu nekkee ñi ko araamal mooy mbooleem yarul xar kanam ba ak tànk yi man maanaam maanaam maanaam bu fekkee dafa nekk ak ñoo xam ne da koo xaraam ci ay góor ay góor moom itam bokkut kon mu wéet moom dong am na lu ñu koy sutura loo muy awraam mooy commencé bëti jumbax bëti bi su fekkee dafa nekk ak ay ay ay muy góor ñoo xam ne ay jàmbur lañ yaram wépp lañ bëgg mu suturaal ko ba mu des tënk yi ak ak xar bi su fekkee dafa nekk ak nag ñoo xam ne du ñuy ajaanib ay maxaarib lañ muy ji góor ñoo xam ne moom euh, dañ koo xaraam nee nañ euh, mboole yor mi awra lu dul li ñu wax al atraaf bi ak atraaf yi atraaf yi nag mooy lan wax nañ ko léegi mooy bopp bi ak loos bi ak ñaari loxo yi commencé ci mbagg yi ba ci suuf ak ñaari euh, tànk yi commencé ci bëti woñ ba jëm suuf Euh, loolu bu nekkee moom ndaw si ak ay ay ay mbokkam ay magam wala ay rakkam nit ñu ko xaraam euh, ñu mbokka ndaw dañoo ko bàyyi euh, wala way juram mën na ko wuññi naka noonu bu nekk aw jigéen tam bu nekk aw jigéen tam yooyu mën na ko wuññi kon loolu may awray jigéen ci biti julli am na boo xam ne su nekkee moom kese la ci këram am na boo xam ne bu nekkeek ay jaambur yu góor lañ Euh, am na boo xam ne bu nekkee ay ñu ko xaraama denc lañ ñu góor ah, wala ay jigéen ñoo xam ne ay jàmbur lañ yëpp ñu bokkaat euh, su dee awray góor nag ci bitti julli mooy nekk diggante jumbax bi ak bëti mi rek loolu ñoon ku jigéen gi na koy suturaal bu nekkee ci néegam moom kese bu wéetee ku góor ki moom noonu lañ koy suturaal bu nekkee ci public bu nekk ci biti lu dul loolu dagan nañu xool ko ci góor euh, ci aw yaramam ak lu man doon su fekkee euh, ragaluñ ca fitna bu fekkee ragaluñu fitna ndax li ñuy bañ rek euh, mu jur fitna mu jur fitna waaw dañuy wax ni sax am nag mën naa wute moom itam aw awray góor awray góor mën naa wute awray góor ci bitti ji mën naa wute ci wuute ki koy xool ki koy xool awray góor ci bitti julli dana wuute ci wuute ki koy xool ak bu fekkee jàmbur bu jigéen la euh, waaw bu dee jàmbur bu jigéen la su dee jàmbur bu jigéen la mboolem yaramu waaja xawra la ci moom jàmbur bu jigéen sëñ xool jàmbur bu góor yaramu jàmbur bu góor ni mu nekke moom jigéen jooju aw yaramam ni mu nekk awra ku góor ke sañ koo xool moom itam noonu la ku góor ki yaramu góor ki nekk awra moom itam euh, sañ koo xool xëy na seetee nañ ci li ñu wax léegi moom gannaaw tuuti ndax kee bu dee jigéen ko moom yaramam yëpp lañ awra la bi nisba ci waa ji euh, jàmbur bu góor bi jàmbur bu jigéen bi nag pour ku góor ki euh, lay nekk awra yaram yëpp ba mu des li wax al atraaf te mooy léegi mooy bopp bi ak ñaari loxo yi commencé ci mbagge ba ci barami ak ñaar tan ki wasi ba suuf lolu dagan na ci jambur bu jigen mu koy xol ci jàmbur bu góor su ni xamna na ni loolu mënu ko jural banex wala waaye fekk bu ko de xol mën jural banex bu mu yëg dara so lolu lañ doon tere lolu lañ doon tere lolu lañ doon tere kon jambur bu góor dañ ko ay mu xol jambur bu jigen ludul xar kanam ak tenxam benen parti ci yaram suñu ci tek batam di xol amma jàmbur bu jigéen bi nag dañ koo tere mu xool jàmbur bu góor bi suuf mën naa tànk ya ak euh, loxo ya ak bopp ba ak baat ba bu fekkee ragalul fitna mais bu fekkee daa ragal fitna sax tax euh, dañ koy tere hmm. ah. ah dana araam xool awray góor ak jigéen su fekkee ni moo xam awra ba ba nga jokk ca cër ba wala jokkootu ca xool aw rey nit mooy yu ñuy wax léegi moo xam góor la wala jigéen dañ koy tere su fekkee awra mi ngi jokk ci jëmm ji walla mu taxari ko moom masalan su jigéen daggoon karawam kawaru boppam teg ko fe wala góor wat kawaru naqam teg ko fe wala ñu dagg loxoom teg ko fe wala mu dagg tànkam teg ko fe pooj ba dafay araam ñu xool leen ci parti yooyu ginnaaw bi mu teqale ko ci yaram bu ñu waxee nag xëy na karaw karaw karawu dëggantaan la ñu wax maanaam bu fekkoon ne jigéen gi tey dafa sol perruque wala euh, greffage yooyu mu dindi ko teg fee man loolu mën na caa bañ a dugg moom mën na caa bañ a dugg waaye karawu natiram kawaru natiram bu fekkoon da ko war teg ko ci param euh, day day xaraam góor ki di ko xool nekk nag góor ki mbortoon karawam teg fee euh, ci ci xaraama xool. Euh, ca bam nekk ci yaram buñ ko mom euh, da fay haram euh, mu di ko xool bu fekkee nag démarqué dañ ci ay tafsil foofu dañ ci def ay tafsil wax ni awra bo xam dafa takaliko ak jëmm ja ca ba muy dund dagan na ñu xol ko amma bu de dafa teqalikoo ko ginaaw bam de nak mo mu yam mu saxon ca ñoyam mu saxon ca ñooyam mu saxon ci ñoyam kon euh, mooy tax nga gis néew bi ginaaw ba mu faatoo tam du tax ñu mën a xool awraam gis nga ko ba góor fi mu ne mënta sang néew bu jigéen góor mënta sang néew bu jigéen même su demoon ba moom dong ñu góor doo nga fa nekk dañuy wax nañ ko tiimal te te te denc ko waaye duñ duñ ko sang duñ ko sang kon bu fekkee ni bi muy dund lañ dindi cër boobee wala ñu taqale ko jëmm ja bu dee maalikee dañuy wax ni xaraamut ñu di ko xool ndax boo ko tunoon cër amma fekke gina ba mu dee lañ ko ci doog a dindee nag dina mu su baba nak lay melni atep lu ci sax la yor hmm ah kaddu jigen waaw eh, ni ko lawra kaddu jigen ni ko lawra ndax soxna yent bi sallallahu alaihi wasallam da nañ waxtaan ak saxaaba yi daan nañ waxtaan ñu liñ bëgg ñu waxtaan yëpp nañ ak ñom waxtaan ak ñoom bëgg yépp Eh, ñu déglu ci ñoom àttey diine daanañ leen jàngal soxna yonent bi daanañ jàngal saxaaba yi saxaaba yi daan dem di leen laaj ay àtte ñu leen koy jàngal ñu jàngal eh, xëy na kay bañ mooy eh, su fekkee dañoo ragal fitna ca dégg ga su waa moom dafay xaram doon jàng alxuraan la rek ak leen lu man doon bu fekkee ni ku góor ki bu dégloo kàddu ku jigéen ki mu jural ko bànneex su boobaa loola dafay xaram donte day jang alxuraan nak donte jang alxuraan mu tudd yalla du yalla waaye bu dudd lolou góor man nay wax ak jigen góor man nay wax ak mën a di wax di tontonte ak moom jigéen mën na wax góor di ko deglu bu fekke ni euh, euh, ragaluñ fitna ragaluñ fitna bu fekkee dañ ragal fitna te kooka bànnee ko ca kaddu ga su boobaa loola da dafay xaraam moom ni mo arame xol jàmbur bi jigen noonu la araame xool waxambaane wu góor waxambaane wu góor maanaam ko wax ne amagut karaw ci sikkim bi bëreegut ay karaw te te te xar kanam ba rafet muy ko taaru euh, dañuy tere ko xool jublu ca bànneex donte góor la ni moom dañuy bañ góor muy xool taarub góor ni moom dañuy bañ góor muy xool taarub góor ni moom amaa xool wax jubloo ci dara nag bu fekkee wóolu lañ fitna ta bu fekkee ra maanaam ragaluñ fitna lool euh, lool loolu ci bu fekkee ragaluñ fitna danañ ci kon góor dañ koy tere muy xool euh, moroomum góoram di bànneexu euh, ca ca ca xool ba ca xool ba bu fekkee ni ragal ni fitna mën na ko ca fekk bu fekkee am awray gone nag. ndax wax nañ awra yi gone ak awra yi mag bokkut ni awra góor amee awra jigéen am ko awra ci biir julli ak awra ci biti julli am naka awra gone ak mag dafa am. awray gone gu ndaw ci biti julli day wuute ci wuute góor la wala jigéen ak âge bi nu mu toll at yi xale bu am juróom-ñetti jëm suuf amul awra dagan ci ku jigéen muy xool. Euh, yaram wa yëpp moo xam muy dund wala bu faatoo ak mu raxas mu sànq bu faatoo xale bu góor ba am juróom-ñetti at amul awra dagan na jigéen muy xool parti yaramam yëpp dagan na jigéen muy sang xale ba bu góor ba kanam am juróom-ñetti at même bu faatoo daggan na ku jigéen ki sang xale bu góor ba am juróom-ñetti at su amee juróom-ñeenti at ba muy at fukki at ak ñaar. dana dagan mu xool mbooleem yaramu moom ku jigéen ki ku góor kooke waaye du daggan ba sang ko nag waaw gone gu góor ba amee juróom-ñeenti at boobu muy am euh, fukki at ak ak ak ñaar de neuf à douze à douze ans dana daggan ku jigéen muy xool awraam yëpp moom ku góor gi waaye nag du boobaa du ko sañ sang huit ans ba maanaam ba bay am daal un an ba mu huit ans fi mu juddoo ba mu huit ans daal sañ na koo xool sañ na koo sang su xasee am neuf ans nag moom ku jigéen ki amatul droit di di di sang ku ku wóor ki sañ naay xool yaramam yëpp waaye amatul droit sang ko amee treize ans nag fukki at ak ñett jëm kaw bu boobaa kooka comme góor lay doon comme góor lay doon yooyu nañ ko bàyyi xel ñi nga xam ne dañu ne ci kër yi des fois ñor ay mbindaan wala ay jànq yoo xam ne dañu ne ci kër yi. di liggey yow bu dé sa sa sa dooma mom kooku man na bañ problème xeyna xawra man na naa yéex tuuti donte sax mën nañu mën naa dugg mën naa nekk mu kàlla mën na man na mën na cee duggaale waaye xëy na mën naa tere waaye daal góor ci ba bu muy am juroom ñetti at amagul awra góor mën naa xool yaramam yépp man na laal yaramam yëpp jigen man na xol leen man na laal yaramam yëpp saa juróom at ba fukki ak juroom ñaar sañ na koy xool waaye moom ku jég sañ xool xale bu góor waaye sañatu ko sang sañatu ko ko sang su xasee am fukki ak ñett nag moom jëm kaw su boobaa comme mu la ku jigéen sañatu koo sang kon gone gu am 13 ans euh, bu ko kenn sangloo mbindaan bu ko kenn sangloo jigéen sañatu koo sang gone gu am 13 jigéen sañatu koo sang comme mu euh, dafay xaram euh, ku jigéen di xool awraam. Hmm. bu dee ku jigéen kon kon jigóor huit ans lay commencé ba ba ba treize bu dee doom ju jigéen nag bu jigéen euh, bu xasee am ñaari at ak huit mois maanaam ba ba am ba ñaari at yi tegal juróom-ñetti amul awra ñetti at yu gone gu jigéen boobu muy am trois ans amagul awra amagul awra euh, góor mën na koo xool mën na ko laal. day dagan ci ku jigéen euh, mu xool mboolem euh, yaramam man man day day day day day dagan ci ku góor mu di ko xool waaye du dagan mu sanko nag du dagan mu sanko dagan mu sanko gone ko jigéen moom bu xasee man maan maanaam jigéen daal góor du ko sang jigéen jigéen yàlla dafa fiir foofu fiir xale trois ans rek trois ans waaw ku jigéen ki soo amee euh, ñaari at ba muy ñetti ñaari at juróom-ñetti weer rek ba muy àgg amut amut awra amut awra maanaam fi muy amee ñaari at ak genn wàll euh, daanaka ba mi ñaari at ak juróom-ñetti weer diggante ba la amul awra soo amee ñetti at ba ba muy am ñeenti at euh, doom awra ci xool euh, man na ku góor sañ naa xool awraam yëpp. waaye bu dee laal ga nag foofu mook mu kàllaf mu jigéen ñooy yem kon jigéen moo gën a néew ñaari at ba am ñaari at ak juróom-ñetti weer diggante boobu moom góor mën na koo xool maanaam ku jigéen ki amagut awra amagut awra dañu ko daan amagut awra amagut awra bu ñuy bu buñ koy nëbbal soo xasee am ñetti at nag eh, boo amee ñeenti at xëy na amagut awra ci xool góor mën na koy xool waaye nag Euh, bu fekkee laal la góor sañatu ko laal kon gone gu jigéen gu am ñeenti at kese ba muy xasam ñeenti at gone gu jigéen bu xasam ñeenti at moom mu kàllaf mu jigéen mu am ñeenti ñoom ma ma euh, di sota ñooyam góor sañatu koo sang góor sañatu koo jigéen góor sañ naa sang jigéen boobu muy am ah, ñaari at euh, ñaari at ak genn wàll ñaari juróom-ñetti sañ na ko sang su xasee am ñaari at ak juróom-ñetti dootu ko sang waaye sañ nay xool awraam ba keroog muy am. ñettat ba may ñettat sañatu ko ba ba am ñeentat waaye su xasee am foofu nag sañatu ko uh, laal sañatu ko laal su xasee am ñeentat moom ko koo xool sañatu ko laal comme mag lay doon góor dootu ko sang amma koo xam nak, nag xëy na ba naa bànneex ci moom lu mel ni comme eh, juróom-benn at mook mu uh, mu jigen ñooyam rek mëneetuñ góor mu di ko xool wala mu di ko uh, sang kon gone yu jigéen yi itam daanaka 14 ans rek ci la charia yi commencé fii rek ñoom 14 ans day commencé eh, fii ci ñoom hmm. bu dee ci biti julli bu dee awray gone ci biir julli nag moo xam bu fekkee góor la mooy eh, ñaari ñaaw téef ya muy saw ak naq ba ak jekkikaay ya mooy yi muy faja aajo barab yi muy aajo ak barab yi muy jekkee ak la tiim eh, naq ba maanaam wàcc jumax was tuuti loolu mooy awram sopp nañ moom mu suturaal ko su fekkee day julli kon sopp nañ gone buy suturaal buy julli mu suturaal awram góor sorewuñ rek moom mu bu dee jigéen nag gone jigéen awraam mooy nekk ci diggante jumbax bi ak bëti woom yi mooy mu xàll sàmm ba tey dañuy sopp kilifaam ñu leen di digal ñu di ko suturaal ñu di ko suturaal hmm. léegi def sa ñu ko suturaal ci lu julli ak ci euh, maanaam ci biir julli lu julli lépp ah dañuy so ñoom ko ah euh, awray góor bu gone la mooy euh, ñaari ñaawteef yi ak naq ba ak jekkaay bi dañuy sopp suturaal ko bu dee jigéen la awraam ma nekk diggante ñu wax ba ak bëti woom ya mooy awraam waaye dañuy sopp mooy itam ñu di ko digal mu di ko suturaal ci julli ak ci lu julli itam nag lu doole ko ci loolu nag ci li ñu suturaal bu dee ko dañ koy sopp rek comme niñ ko euh, gise woon comme niñ ko gise woon kon euh, awra mooy loolu am na awra bu ñu suturaal daaxila zala daaxila sala mooy awra mu xafaf mu xallasa awra bu foor mooy ñaari ñaawteef yi euh, ci góor ak jigéen defe naa leeral nañ ko am na mu xafafa mu xallasa ba moom obligatoire dañ ko sutural wala soo jullee euh, julli ko du baax euh, mu xafafa euh, mooy boo xam ne moom dañuy sopp bu fekkee dafa wuñu ko nga julli ci waxtu sutural awra itam wax nañ ne atam mooy chart la ci julli chart sixa la day tax julli gi wér dafa war a sax tam nag ci commencement julli gi ba ci fin bi bu dul nag ci julli biti awra defe naa leeral lañ moom itam jigéen awraam moo gën a yaatu bu nekkee ak jàmbur bu jigéen maa jàmbur bu góor wala bu nekkee ku ko xaram ku góor wala bu wéetee moom donc def naa leeral nañ ko wan leeral nañ xaw a xale euh, ala kulli haal euh, lislaam daal diine la ju ju ju ju ju civilisé diine civilisé ndax boo xoolee muy jàngalee itam nag ak yiw la ak ak civilisation la bu baax a baax ndax doomu aadama dëgg dëgg dëgg daa war a suturaal euh, yaramam te boo demee ci société occidentale yi nga xam ne yu mel ni bàyyiwuñ ko xel nga xam ni gis ngeen yi xew ci jamono yi ngeen di ko topp. yooyu rek moo ko ñàkk ñàkk sàmmante yi ñàkk sàmmante yi moo koy jur ndax mboole bi ci lislaam doon tere boo demee ca fi na am na foo xam ne euh, ay place yoo xam ne ñu wax ni jur kenn xamatul lu muy niru euh, jur na yu bëree bëri ci ay fitna ki alkande yoo xam ne su ko dee kon euh, nañ sant yàlla baax a baax ci ba mu ñu joxee diine joo xam day diine joo diine bu dee civilisation bu mat sëkk la indi boo xam ne moom fa civilisation yam yëpp yam fa la commencé jëm kaw moom ci wàllu euh, sàmmal nit am sàmmal nit honneur am waaye sàmmal nit ak niteem tam ba nga xam ni wax dëgg yàlla da da da ku ko seetantal euh, tam du doon li ngay nekk jullit do nga li yàllaa ko santaan waaye da nga xam ni wax dëgg yàlla col gu yiw sutura lawra loolu loolu yarumaanal lu yarumaanal loo xam ne même bu ko yàlla santaanoo sax nit ñi dañ ko war def mel na xam naa mbokk mi may wax ni euh, ak seen fi rekk jataay bi Euh, ñu di ko jaajëfal bax sëriñ Abdou ndjay euh ali jaajëf sëriñ Cheikh Sam euh mu doon seen émission islah daara seen bokk maam Balla Mbacké Muxtaar ñu doon waxtaan tay rek ci benn ci charte julli yi te moy euh, suturul awrati muy nit ki sutural awraam way ñu indi walé sutura awra ci lu julli ci bit ci bit julli tam tam am solo lo xamni tam euh lu mat di bayyi xel lu mata euh fonk su ko defee euh, lu ci jup ci borom ba ñu sant gën lu ci njumte ñu ngi ko jéggu su ko defee leen dig ben da ci carte borom bi di ñaan yalla mo ngi gudd fan gu ànd ak wér waaye di may nu xew li ànd ak barke waaye sutura saan ak jéggal di ko wax moom borom di ko wasalli suma saliman yaa xarib ala wasilati alkaami jib sayidina muhammadin bil ali wa sahbi wala sajib suali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin وآله وصحبه وسلم وبارك حمدا لمن أورثنا الكتاب حتى به عنا نفر عتابا حمدا لمن أورثنا الكتاب حتى به عنا نفر عتابا مصليا على وسيلتي له خير الورى الذي أرائي قيله هذا وإني للذي يكفي الضرر عني توسلت بأسماء الصور فقلت راجيا قبول نظمي وأن أكون طاهرا من وصمي